dal leen ak jàmm ci seen plateforme télé bu baax bi tele bu baax bi di leen indil ay histoire yi leen di wéttali jamono bu nekk ci sunu réew mi amoon na fi benn kilifa diina gu mag kilifa diina gu baax goo xam ne ku lewetoon la ku rafetoon jikkoo ak doxalin digganteem ak nit ñi jubam ak dëggoom tegu woon gi mu tegu woon ci siraatal mustaqim ak ñor gi nga xam ne noonu la ko diinam bi mu bokkoon ñoroon lool rawatina kër gi mu bokkoon mu ñoroon ko lool bu daan ci dox jéego yu rafet di yaatal ay mbiram diggantam ak yeneen kër diine yi kilifa gu baax googu lawet gi mu doon dox diggantam ak nit ñi ak nooy ak sedd gi nga xam ne moo ngi ko doon doxal diggantam ak nit ñi ba lu mu wax nit ñi mën koo déglu taxoon na nit ñi bëggoon ko lool ci jamonoom. ci sunu réew mi nag ñi nga xam ne dañ fi liggéey liggéeyu maanaam di daan seen doole nekk ay xale yu jigéen di liggéey di daan seen doole ñu di leen woowee ay mbindaan lu ëpp ci nit ñi ñoo di mbindaan yi duñu leen jox cër duñu leen jox li nga xam ne mooy gëdd bi war seen diggante ak nit ñi àq yu bari moo ciy dox dañ leen di ñàkkal fayda di leen xeeb di leen doyadal di leen suufee ci seen nekkuwaay lu ëpp ci réew mi noonu la ñuy doxalee ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee mbindaan yi te itam ñu nekk ñoo xam ne nañoo dem. di defi leneen di defi naka sudut noonu waaye ñi am jom te amuñu doole tey it mënuñoo def dara amuñu liggéey dañoo décider di liggéey liggéey boobu ngir te ci suturlu di ci dimbale seeni waajur mënoon nañoo def leneen waaye dañoo décider di liggéey liggéeyu jànq ngir di ci dimbale seeni waajur moo ne sax liggéey boobu liggéey bu noobul la ndax sunu doomi réew yi nekk ci réew mi bu ñu demee bitim réew lu ëpp ci ñoom dañuy liggéey liggéey boobu waaye liggéey boobu itam bu ñu koy def dañ leen di jox worma ci réew mi ndax alal yi nga xam ne ñoo ngi koy am te di ko yónnee waaye foofu ñu nekk itam kenn bëggul ko leen di xeeb ak ku leen di doyadal kon liggéey boobu liggéey bu noobul la moom kilifa diina gi nag ku xamoon loolu la. ba tax na ñooñu ñuy woowee mbindaan yi daf leen a bàyyi woon xel tur ñu leen di woowee muy mbindaan daf ko bañoon daan ko tere ay njabootam ñu koy woowee ñi nga xam ne ñooy liggéey seen kër. moom góor gu baax googu benn ci ay këram amoon nañu benn mbindaan bu fa daan liggéeyee. benn jànq boo xam ne benn ci ay këram dañ ko jëloon mu daan fa liggéey këram bi nga xam ne moom moo ko moomul boppam ay njabootam nekk fa kilifa gi saa bu nekkee ci kër googu dafay bàyyi xel mbindaan moomu considéré ko comme ni mu considéré njabootam ni muy bàyyee xel ay sëtam ak i doomam noonu la bàyyee xel xale bu jigéen boobu di liggéey ci kër gi mu considéré ko comme njabootam. noonu xale bu jigéen bi woy di liggéey ci kër gi. amul benn jafe-jafe waa kër gi nag ñoom comme ni nga xam ne noonu la ñuy xoolee jànq comme ni ko dëkk bi di xoolee rek ni ko ñëpp di xoolee yem fi nga war a yem liggéey li nga war a liggéey li ci des seen yoon nekku ci waaye ki nga xam ne mooy kilifa gi di góor gu baax gi moom saa bu nekkee ci kër gi day bàyyi xel xale bi comme ni nga xam ne noonu lay bàyyee xel ay njabootam xale bi woy di nekk di liggéey ca kër googu waaye mu toog benn fan xëy ñaari fan xëy ba ci ñetteelu fan gi waa kër gi ñoom bàyyiwuñ ko xel comme xëysiwul rek ñoom ñu ngay wéyal seen liggéey bu ñëwee la nga xam ne liggéey ko ñu dagg ko ci salaire am waaye ki nga xam ne mooy kilifa kër gi moom di góor gu baax gi moo ngi bàyyi xel soxna soo su nga xam ne daf doon liggéey ci kër gi te ñetti fan xëy siwul noonu góor gu baax gi daal di laaj waa kër gi neleen waaw ana jànq bi fi doon liggéeyee waa kër gi daal di ne ko moom de xëysiwul siwul ñetti fan yi góor gu baax waaw man seetlu naa ne ñetti fan yi xëysiwul lan moo waral xëysiwul ñoom ñu ne ko ah ñun de xamuñu lan moo ko tere xëysi mel ni daal ku soofantal mbir yi moom góor gu baax gi mu ne moom fan la dëkk ñoom ñu ne ko ah ñun de xamuñu fu mu dëkk exact waaye daal dégg nañ ñu ne côté Géejawaay la dëkkee góor gu baax gi nag daal di mer ñe leen yéen naka la nit di ñëwee di liggéey ci seen biir kër te xamu leen sax fu mu dëkk loolu rek erreur la. waaye amul benn jafe-jafe noonu góor gu baax gi daal di woolu ñaar ci njabootam boole leen ak chauffeur bi ngir ñu wëri xale bu jigéen bi fi mu dëkk waaye njabootam googu laataa ñu gis kër xale bu jigéen bi di xam fi mu dëkk sonn nañ lool ndax fu ñu jaar rek nit ñi li nga xam ne moom mooy oto góor gu baax gi ak ñi nga xam ne ñooy njabootam la ñuy seetlu ba du ñu tala lijjanti xale bu jigéen boobu noonu lañu wëree wëree wëree ba gis kër gi. bi nga xamee ne nag ànd nañoo góor gu baax gi ngir wër kër xale bu jigéen bi di dem ci yoon bi bi nga xamee ni dem nañ ba ci koñ bi di laaj ca kër gi am ñu leen tegtal kër gi ne leen kooku dey du sax jullit bu dee ki ma foog ne moom ngeen di wax xale boobu bokkul ci diina lislaam chrétien la waaye ma nga dëkkee côté sàngam daal di leen tegtal kër gi kilifa gu baax gi daal dina waaw koy kooku nag laay seet xale boobu ngeen di wax moom laay seet bi nga xamee ne gindeeku nañ ngir seet xale bi waaye mbooloo mu baree bare bari topp nañ oto góor gu baax googu ndax kilifa gi nga xam ne nekkoon na ko ci réew mi bi nga xam ne topp nañ kilifa gi ba ci buntu kër xale bu jigéen bi noonu mbooloo mi bari lool waaye noonu nañu xàllalee góor gi ba mu dugg ci kër gi bi mu duggee papay xale bu jigéen bi bi mu gisee góor gu baax gi dafa daanu xëm ndax tiit ndax problème mooy ku baax kii nga xam ne dama ko sopp lool ndax jikkoom yu rafet ana lan lay def sama biir kër gi loolu def na ko mbégte mu rëy ak jaaxle ba mu daanu daal di xëm bi nga xamee ne papa xale bu jigéen bi xëmmeliku na daal di toog noonu bi mu toogee góor gu baax gi daal di waxtaan ak moom ne ko maa ngi jéggalu mbooloo mi ak li nga xam ne mooy coono yi nga xam ne daj nga ko bi ñu duggee sa biir kër noonu ki nga xam ne mooy papa xale bu jigéen boobu moom itam daal di warmaal góor gu baax gi loolu am mbégte ci gis gi mu ko gis biir këram. mu daal di ne ko waaw ana lan moo doonoon sa tànk yow góor gu baax gi ana lan moo doonoon say tànk noonu góor gu baax gi daal di koy tontu ne ko man de dafa am sama sët boo xam ne daf doon liggéeyee sama kër benn ci samay kër waaye mu bokkoon ci samay njaboot itam ma toog nag ñetti fan gisuma ko xëysiwul waa kër gi itam xamuñu lan moo tax xëy siwul man itam ma ne naa dox ay jéego ngir seet ko ba xam jàmm moo ko noonu papa xale bu jigéen bi daal di koy laaj turu ki muy seet mu wax ko turu xale bu jigéen bi papa xale bu jigéen bi ne ko kooku sama doom la moom nag ñetti fan yëpp dafa tawatoon tëdd moo tax xëy siwul noonu góor gu baax gi daal di ne ko waaw loolu moo taxoon nag mu ñëw seet si ko indil ko caraange yi ngir jox ko ko ndax ci sama njaboot la bokk noonu mu dal di wax njabootam gi ak ñi mu àndaloon nañu wàcce bagages yi noonu lañu wàccee ay saakoy ceeb ay bureau diwlin ak xaalis ak teraanga yu baree bare ñu wàcce ko ci kër góor googu ci kër pàppaay xale bu jigéen boobu nga xam ne daf doon liggéey ci biir këram bi ñu wàccee bagage ba teg ko pàppaay xale bu jigéen bi ndeke li mu sëgg yëpp moo ngi jooy jooy yu méttee métti métti li mu jooyee ba noppi nag daal ne ko góor gu baax gi teraanga gi nga ma defal ba tax na sama dëkkandoo yeeg koñ beeg gox bi yëpp bàppeeku ñëw topp la taxaw sama buntu kër gii ndax teraanga ji nga ma defal te itam bokkuñu diina man ak yow ndax man chrétien laa yow musulman nga te teraanga jii nga ma defal nag jàpp naa ne mënuma la ko fayee lenn lenn lenn rek lu dul bàyyi sama diina dugg sa biir diina noonu nag la pàppay xale bu jigéen boobu daal di tuubee daal di na ko nag bis tey dugg naa ci sa diina yow góor gu baax gi daal di wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah noonu de histoire góor gu baax gi ak xale bu jigéen bi la papa xale bu jigéen bi nekkee musulman moom ak njabootam. ndax ñëpp ñuy seetaan vidéo bi danañu laajte góor gu baax googu mooy kan ndem ci réew mi la dëkk te kilifa gu mag la ku ñëpp bëggoon la waaye su ñu ko waxee du bett kenn ndax baaxam ak jikkoom bu rafet góor gu baax googu nag mooy maam Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu anhu yal nañu ko yàlla fayal te dolli ay leeram te taas ñu ci barkeem bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi kon jëflante bu rafet diggante jullit ak moroomam waxuma la sax li ñu jàngee ci histoire bi waaye jikko ji benn ci jikko yontu bi sallallahu alayhi la ndax doxoon na digganteem ak benn voisin maanaam benn dëkkandooram moom yontu bi sallallahu alayhi wa sallam dëkkandooram boobu dafa nekkoon ab yahud bañoon yontu bi sallallahu alayhi wa sallam lool comme yoxoot la woon te yoxoot yi dañ daan xeex yonent bi ci jamono boobu moom nag comme jege na ko daan na def le tout pour yàqal yonent bi ak di ko mettital daan jël yi nga xam ne mooy mbalitu këram ak yi salte biir këram yi nga xam ne ay salte salte la su raxasee bu noppi da koy sotti biir kër yonent bi sallallahu alayhi jël ko biir kër yonent bi daan itam di jël mbalit di ko sotti buntu kër yonent bi daan na bàyyi ba yonent bi di génn mu jël sobe soppi ko ci yoon wi ngir yonent bi sallallahu bañ faa jaar ak métit yu bari daan na itam di àkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci njabootam nga xam ne daawuñu def dara léeg-léeg mu duuma kenn ci njabootam bu jooyee suwaay ñëwee ak si yonent bi sallallahu alayhi dafay jox waa ji dëgg yonent bi lépp lu waa ji def ci lu ñaaw rek moom mu def ko lu rafet waaye yonent bi toog diirub ñetti fan jàpp ñeenti fan. gisut mbalit bi nga xam ne daan nañ ko sotti buntu këram gisul itam yu salte ak yu bon yi nga xam ne daan nañ ko ko def noonu mu laaj waa këram. ñu ne ko ki nga xam ne moo ko daan def muy sa dëkkandoo bi moom de dafa tawat dafa tawat diirub ay bis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag daal di yëkkati ay teraangam dem ci ki nga xam ne mooy yéefar bi daal di koy seeti bi mu ñëwee ñu ne ko yonent bi sallallahu moo lay seet mu jaaxle lool ci lu ko yonent bi war a doyee waaye comme xam na ci yonent bi ak mbaax ak jikko yu rafet ndax lim ko daan def yëpp yonent bi daaw ko topp te daawul fayantoo ak moom noonu xelam daal di dal mu ne na ñëw na jàll si yonent bi saasam bi mu duggee néegam toog ki nga xam ne mooy yéefar bi daal di koy laaj ne ko ana lan ma doon say tànk yonent bi daal di koy wax li ko yëkkati ne ko damaa toog ay bis gisuma la gisuma it yëg ma daan def xaw nag ma jaaxle ma la laaj ne ma da ngaa tawat ma ne naa ñëw seet si la noonu yéefar bi daal di jooy daal di téye ci loxo yonent bi daal di koy fóon daal di ne ko yow de wat naa ne bu dee ak mbaax rek. ba àdduna sasoo ba tey mosumaa gis ku la gën ci ak mbaax te itam ku mel ni yow xam naa ne jomb na ci moom muy wax lu amul kon jàpp naa ne li nga wootee dëgg la ndax nii nga mel moom kenn du ko mel di wax lu amut lépp loo wax rek dëgg la bis ni ki tey gëm naa la te gëm naa sa diine ji nga xam ne moom ngay woote daal di tuub daal di wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah lii doxoon ci diggante yonent bi salaa salaam ak dëkkandooram bi muy histoire bu siiw waaye li itam doxoon ci diggante góor gu baax googu di maam Abdou la baax ak janq boobu nga xam ne mbindaan la woon daan daan dooleem nga xam ne bokkuñu woon sax diina li ci des nag ñu bàyyi leen ngeen jàngatal ko seen bopp ci commentaire yi ñu jox leen dig daje beneen histoire incha allah dal leen ak jàmm ci seen plateforme tele bu baax bi tele bu baax bi di indil ay histoire yi leen di wéttali jamono bu nekk